killeeni tuddal na ko ñaanal njëgal ku ànd ak yërmande ñaanal ko sin seexi faabal jàmbaar ja dem na yaram ba dem na mam nga waa daara rek la weetal witi su metti ko fàtte jàmbaari qur'an janan ko jooyal rongoñi xol yaag ya ngir ñàkk jàmbaar ja yàlla baaxal ahil ngirim ba am bayo ba sax ku ñàkk sin moon ko jooyal dara ko jooy am donga yaay jooy ahil sëriñ maam moo Mbàkke Faadal ay Mbàkke dem nga ak sa mbaax ba dem nga yóbbaale sak sel yaan weetal sa waar wa booyul tambay ma ñaawul taqabbal Allahu yàlla nangul la ful ay ful yu rëy ci barkeem alxaaji faabal amiina amiin ne leen nu amiin ci barki kay baayub Cheikh faabal تشاء وتنزع وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يتولك عن ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقيه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المسير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض من الأرض وإذا أنتم وجنكم في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقي أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا وأكدي أعنده علم الغيب وهو يري أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي ألا تذر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعي وأن وأن سعيه سوف يري ثم يجزيه الجزاء الأوفي وأن إلى ربك المنتهي أيها الذين آمنوا استجيبوا لي لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس أن يتخطفكم الناس الله سفهاء عليكم وأيدكم بنصره وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة فتنة وأن الله عنده أجر عظيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زهر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فياتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغني عنهم ما كانوا يمتعون كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتينا القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتموا إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينبغي يصرفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا تري لا تري فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما قال الفقير العابد الرحمن أحمد بازي أحر الإنسان الحمد لله المني للأوتار ndokkeel si naa ñiy jànge naylu lawtaar alhamdulillahi li mu ni ni lawtaar ndokkeel si naa ñiy jànge nay du lawtaar soxna yi dëddu àddina ak taaram yi ngir sàkku alxuraan ñilee moom way yii yéen dëddu ngeen ak njàngu ak cakaayu kenn tëlta sol gàtt wër di jaayu jaayante ngeen ba wattu tiiro yàlla jar ngeen a kañ war ngeen a sant yàlla war ngeen a sant soxna Ami ñaanal ko wér ngir ni liggéey bi diise talu la naan talu la lekk bay suur yéen rekk a tax talul nelaw ba yandoor na yàlla dolli barke ak taraanga fegal ko lépp luy waral yaraanga ñi tari leen mokkal ma tagg leen gaaw ngir maa sargal ña mokkalan daaw ma tagg bintu siise ak maam jaara ma sant jóob am nañu rayaw daara maam jaara jàngoon na ba samp daara dellu ko tas laxasu dellu daara lam daj ba mokkal koo ko wax mu waaru muñ rekk a tax ba alxuraanam taaru roy leen ci muslim mbàkke jël na doomam jébbal wu jëm ba mu loolu day na mooy loolu mooy ndam ngir buñ yoroon sa yóbbu ku jéeg a ŋaayoo tey lii du am na jeeg ji sax ci waayoo Roqaya Jóob soxna daba di jàmbaar saat yu niiw teewul ngaraw ci wii waar Fatima Njaay di doomi Aliyun Njaay sargal la war na yow bégal nga say baye yow soxna ant Kebe doomi aatu tey ji yayoo nga ay ngërëm yu yaatu Maryama Muub mokkal na soxna Jama Mbay mokkal na yal na yàlla naatal seeni mbay jar a kañ téere bi ngeen di taaroo moo gën damoo caqi wurus gën jaaroo muñ ngeen a muñ ba wattu waaw leen kumba na yàlla sàmm leen ci barke Bamba faw ma kañ waajur yi leen fi indi ndam lépp ñoo ma tey nde ñoo leen gindi buñ leen bawoon ca kër ya ngeen ca kaayu di xaari far tey li jaayoo kon lii du am jaaraama seeni way jur waajur a tax ku nekk jot ci sa piir اللهم صل على رسول الله وآله وصحبه وسلم جرجن جف ولنبلونكم بشيء من الخوف بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أواي بريا ليو يا سن أواي بريا ليو يا من yow yaa may ku dundam te yow yaa sañ fat bakkan toloo def nangu nañ loole du tee dee metti aw askan su doon baax mooy tere dem kon sëriñ Habib du dem jooy nañ Habibullahi moo am ngor bëggoon xam-xam bëggoon Qur'an ni dara ñaan tey baayam ba jël ñam di sol seen cin fu ñuy raase di kook lum am du def bankam du def sikrong dafay jël lépp jox dara ta doy loo buur borom kattan ñu koy jal waa këram yépp ak xarit ak dëkkandoo yi ñun suñuy ronkoñ du fer ñun waa te nag teewul itam muñ nañ na buur dolleeti yërmaaneem ci moom xeewal yu raw ay ton awaay nee leen من نحيل la buur far suñuy bon bon awaay ne amin ndax yal la bi far suñuy bon bon mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen ziyaare waaye ci turu Touba ca kanam ci turu seen njiit sëñ Abibullahi Mbàkke moom Serigne Falilou ñu ñëw fii tey ci turu euh, commission scientifique culturel culturelle ak mboolem ña fa nekk te mën a ñëw dañ ciy gën a xàmmee rek ku ñu mel sëñ Saliou Diakhaté mi nga xam ne moom mooy naay bu raïs ci googu kuréel ci euh, commission boobu ak al al al faqiye sëñ Souleymane Badiane di ko ñëpp xam ci waar wi sëñ Adama Ndiaye moom it ak sëñ Mame Balla Guèye ak sëriñ Mayib Ndiaye Muhibbul Xadim mbooleem nag Touba Ça Kanam jëpp nag ñu ngi rafetlu bu baax a baax tud tudde gi di xam ne am nañ ci mbégte bu baax ndax Touba dafa jox cër jàng waaye nag mu mu def ci nag ci bu gën a nekk spécial daara yi xam naa ku nekk war ngaa dégg taxawaay yi nga xam ne ñu ko ci taxaw at mu nekk di tabax ay daara di jàppale daara yi nga xam ne taxaw ba noppi di forme ay sëriñ daara di yóbbu ci daara yi ay ndimbal mu sax fi ñu toll ñu ngi waajal ubbi li ñuy wax daara tànneef ñu mën ko tuddee daara publique ñu fas yéene mu tas dëkk ba ba fees fi dell nga xam ne képp ku fi nekk te am doom ju bëgg a jàng dana fekk fa nga nekk defal na fa daara joo xam ne dañ ci ciy mën a jàng alxuraanul karim te doo fay dara doo joxe sa àllarba waaye teewut ñi nga xam ne ñëpp la ñu ngi woon ci waar wi ñu ngi tàllal ñëpp loxo di xam ne liggéey bi ñoo ko moom soxna si nga xam ne mooy soxna am si ñu ngi koy siyaare bu baax a baax te di ko nuyu yàlla def na xamante wu moom waaye nag mën naa wax ne liggéey bi mu liggéey lépp ñu ngi koy jot mu ñuy fekk fa ñu nekk bu xam bu baax a baax ci dégg ak euh, ak saytu ab taxawaayam ci wàllu jàngale mu nekk nag exemple bu am solo ci jigéen ñi ndax jigéen mooy ki nga xam ne mooy tabax ab societé rawatina fi nga xam ne mooy Touba alxuraan moom mooy dëkk Touba ci boppam alxuraan moo ko moom kon képp ku ci góorgóor rek ku mën a doon cër bi nga xam ne da nga koo yelloo sëñ Touba ci boppam moo la ko jox kon nag ñun dañuy dañuy xalaat rek ne dafa jaar si ñun waaye liggéey moom liggéeyu Serigne Touba kenn moom moomu ko dëkk bi nga xam Serigne Touba moom sanc da ko da ko sancoon ngir jàng alxuraanul karim kon képp ku ci nekk ba pare nekk ci jàmbaar ni nga xam ne noonu na ko soxla si nekk nekk ci jàmbaar ju mag a mag a mag faaw ñëw euh, euh, maanaam daal te témoigner sunu sargal sunu mbégte ci turu ci kanam waaye ci turu euh, commission scientifique culturelle waaye suñ turu bopp nag turu Serigne Daara. bi nga xam ne moom lañu yàlla def ñu nekk ko ñoo am mbégte baax a baax a baax nag ndax njàng mi lii moo koy jëmale kanam dama jàpp ne bëri na warab yoo xam ne ñu ngi fa yónnee ay ndaw Touba ca kanam waaye gën naa ne barab bu ëpp solo bii duñ fa yónni ndaw kon daal ñoo wax ne soxna si ñoo ngi koy tàllal loxo bu baax a baax a baax di ko xamal ne ñu ngi koy wax ci suñu tur suñu Touba ca kanam turu commission charité culturelle daal yi dana dana dana jàpp bu baax a baax a baax lépp luñu saa luñ ci man danañ ko def ba daara ji taxaw moo xam ci wàllu jàngale la moo xam ci wàllu matuwaay la kon loolu loolu moom ñu ngi koy wax fii ci turu ñëpp dégg ko ñu xam ne ñu du engagement waaye nag Touba Ca mooy taxawaayam euh, ku nekk xam ne at mu nekk lu mu gàtt gàtt danañ jël lu mat juróom fukki daara def ci ay mbaar def ci ay ay wanag def fa ay néeg ren jii sax mën naa ne li ñu jotoon a def ci daara yi ne bu ñu ko xaymaa ci xaalis loolu rek war naa lu lu mu gàtt gàtt war naa jege euh, téeméeri million ñu ne ñu ngi ci phase finale bi fi ne nii. kon daal daara ji na xam ne borom bokk na bokk na bi secrétaire ci daara yi nga xam ne nii danañ leen jël en compte lépp lu ñuy lépp lu ñuy joxeeti jëm ci daara incha allah danañu ba fekk ko fii mu nekk waaw ñu xam ne nag fan yi dafa waxat ñun ba nga xam ne ñu nekk ñu nekk ci waajtaayu jeexal jeexal année bi moo tax kenn amul jot waaye wutu bu du woon loolu danañ ànd ak ñeneen ñu ñeneen ñu bëree bëri rawatina sax président ba ak ñi ma àndal ak seen bi tamit yëg na ko te it am na ci mbégte bu baax a baax a baax waaye nag ñi àndal mooy ñi nga xam ne ñëpp rek ñooy liggéey ci wàllu daara di ko saytu xam naa ko nekk ci war naa dégg li nga xam ne ñu ngi koy taxawee muy takk takkwin sëriñ daara yi dafa ko ci lu mu gàtt gàtt euh, ñett dawra ba ne nii fi mu ne ñu ngi ci quatre cent cinquante yoo xam ne nii dugg nañ formation ba génn ba noppi am ay diplôme loolu la ñu fas mu gën a yaatu waaye ni ma dégg soxna si moom jàpp naa ne moom bokkut ci bokkut ci ñi yittewoo moom formation ndax jàpp naa ne moom sax dañoo yittewoo ku mel ne moom mu bokk ci xam ne dañuy ñëw di formel loolu ñu ngi ko sàkku ci moom ci liñ jot dégg ci moom kon daal kàddu yi kàddu yi mbégte la kàddu yi sant la kàddu yi soññee la kàddu yi ñaaxee la kàddu yi seen mbokkum daara la kàddu yi seen seen ndey daara la muy Touba ci kanam kon daal ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na def lépp nekk tawféex lépp nekk barke alxuraan nag jàpp naa ne Touba ku ko fi nekk di ko fi liggéeyal loolu la ñaanal rek mën naa nangu kon ñoo ñaan soxna si yàlla ko ko yàlla taxaw bu baax a baax a ba li nga xam li nga xam mi ngi koy liggéey ci alxuraanul karim mu jëm kanam ba ñu mel ne moom bëri fi lool ay kemam yàlla nañ fi bëri ndax wax dëgg yàlla am nañ ci moom daal mbégte bu baax a baax a baax te ku ñëw fii gis taxawaay xam ne euh, wax dëgg yàlla li ko war lépp mi ngi ci sant baax nag sëñ sëñ Abibu Jóob moom tamit jàmbaar lool ci daara yi wax dëgg yàlla man su ma xamee soxla si tey moom mii moo tax ndax keroog sax ndeysaan moo fa ñëwoon indi liggéey bi ñoo am ci bu baax a baax a baax nag la ma wax lépp soxna si wax dëgg yàlla ci aw yiw ak ci lu baax nun xamuñu ko waaye gëm nañu lépp di sant bu baax it nag euh, sëñ sabar sooy bu ndax dama tamit fi mu jaar ak moom it lépp sëñ Abdou Diop leeral leeral nañu ko incha allah rabbi te ñun loolu loolu mooy suñu yéene kon yàlla na ko yàlla mottali ba soxna si daal am daara yu bëree bëree bëri ñu bëree bëri mokkal alxuraanul karim mokkal bu sell te mu làq si ngërëmul suñu borom yàlla na ko yàlla dafa na ko te tëliwu ko kon daal ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax asalaamualeykum ci lay jëkke man nuyu naa ñi fi teew ne man ak yéen a far asalaamualeykum ci lay jëkke man nuyu naa ñi fi teew ne man ak yéen a far cher monsieur et madame notre chef religieux du grand au je vous dis nuyu naa waxambaane yi ak njegemaar nuyu jeeg demi pas nuyu pas nuyu meer fàllu mooy sama tur sant kan ci lu wér photo mooy sama métier danaa ko waggar taalifit dama ko bëgg man ko bu wér fu ma toogee di way koo foofa mu sawar jànguma aw wayin lu ma way dana jub ku ko peese du dam mu du ca far siñ mu saaka di saa royukaay bi ma am baxru yéen muqtadab moo di man bi ma far abdullah ndong itam du ma fàtte tuuram moo ma teete ci way yal na mucc ci lor fu ma ne cas xalim xaraf yépp taxaw naa ma bind ma yow moo waral ma sawar yëkk day ñi njam ñi njam mën a jam man dama ñi njam mën a jam te sawar wayoon naa ñi mokkal ñeneen mokkalaat ma del seeti jël micro fas leen wayaat wayoon naa ñi mokkal ñeneen mokkalaat ma del seeti jël micro fas leen wayaat mu ndax a isa del si am maam ma am soxna jaara moo del si waat ba ma maastawaalo demee soxna jaara daaraam ja jàngal na ay lim yaraat ma xool na lu awtaar akum njàngaleem ci laa gis ne kii nii te ñee lay royaat ci jàngat ci mokkal ci tajwid bu set te man togg ab ceeb te saf lem ci ab yar ci ak yiw ci bennoo itam te seen mag ñi seen ndaw ña far leen wegaat nekkoon soxna Ami na siisee bégal sa liggéey bi daa set sa tool beeka naat amoo maas ci warsh te man xaf sa lool te peeg fànni njàngin yeneen yun xamaat danga siggilaat ciise yàggal te tabax ay étage dong yi yokkuwaat juróom-ñeente daaw juróom-ñett ren wayoon naa ñëwoon daaw ñi ren lay kañaat kilay soxna jaara jaxate di sa waajur yi bëgg nañ ci li nga leen wanaat wéyal jàng xam-xam tey del nafar na buur def la ngay mag mu ñéppi royaat te maam jaaratullaahi jóob wàcc nga li waajur yi doon xaar nga leen andilaat danga tari kaamil bi bam jeex ñi doon la dégloo ne mokkal gi daay yéemewaat ne yow soxra anta e kebe sëriñ aatu bég na te mën naa ko waat danga siggilaat tey sa yaay jéel jur liggéeyam sa kër baay bi ngay feeñalaat ma sargal fi baat bintu njaay jaata njaay ma sargal fi faat bintu njaay jaata njaay ci mokkal gi ak dal gi lii moo rëyaat nekkat tàyyiwoo bàyyiwoo fas nga jom na buur may la xam-xam bu ñëpp waxaat ma way bintu siise ci mokkal gi man jëfam tuutiwul tax ma koy njukkalaat ne yow gàlli woo ciise waaw kumba yow na buur may la tawféex sa xam-xam lawaat njama mbay sa saan wii de daa jam-jamaa dama bég ci ning jama mbay sa saan wii de jam dama ci ning doon taree naa na buur sàmm mokkal gi xam-xam nga am ci barkeb muhammadu ak zaariyaat ruqiyatu naam jóob ewaay am nga ndam ci sag maas ba nuy kursu yow yaa rawaat danga faydawoo jàng njël ak marax subaak ngoon dawoo jàng yaa mat mataat mare mbuub ajaajëf ci mokkal gi yow sa yi bég nañ balay ñaanalaat amal barke ak bayre dox jëm kanam sa askan nga siggil baraw taaw ba caat nangeen xam ne lii ngeen na xam ne am ngeen lu gën lépp tey ku mokkal fi quraan danga gën gënaat na ngeen téye lii kon xarit ba mu dëgër ku sàggan ba fëttit da ngay rëcciwaat ajaajëf ajaajëf ne waa kumba yéen na ngeen def ba mokkal ba tey lay xalaat yeyoo ngeen a tàntal yeyoo ngeen bégal yeyoo ngeen médaille yii yeyoo ngeen wayaat yeyoo ngeen a jox yéen giléem ak sëfam yeyoo ngeen xar ak nag yeyoo ngeen i naat yeyoo ngeen a lakkal dibeeg ay tufe yeyoo ngeen a toggal ganaar ak salaat yeyoo ngeen lakkal dibeeg ay tufe yeyoo ngeen a toggal ganaar ak salaat yeyoo ngeen a xottil mbasee régisière ne seen palmarès bi dafay soññewaat ku fi wér di zaati na ñaanal allah mu te xam naa da koy nanguwaat na ñaanalaat ami siise ñoñam ñu dëkkee di jàngal ñu fi mokkalaat na ngeen ñaanalaat ami siise ak ñoñam ñu dëkkee di jàngal ñu fi mokkalaat te yéen ñii fi bor dénk wërsëg wu yaa lebel leen fi buur yàlla mën naa fayaat mu ndax kii liggéeyam bu réy bii mu def yeyoo naa dëkkee ci lu yee koy fayaat mu ndax kii liggéey bu réy bii mu def yeyoo naa di dëkkee lu yee koy fayaat ku def ciw ñaqam daal ku def ciw ñaqam daal di am palmarès bu dakkul li fiig bis ba baftuy walaat ku def ci ñaxam daal di am ci salaire bu dakkul li fiig bis ba baftuy walaat ku feeñ nag ci daaraam ji sëg na bu faat ci dunyaa wa uxraa billaahi maa ko waat ma farxat mu saa wi man fàllu ñi mokkal ci ren jii da doon wayaat asalaamaaleykum wa rahmatullah